mbokki sénégal ku doon laajte faali ngoya ngi kii mooy soxna aada seexu yàlla bi waaw waaw kii mooy ponkal bi kii moo mën kii moo ëpp doole kii moo gën a gaaw dama ne déglul soxna aada seexu yàlla bi kii nag moom bu fekkee da nga am jafe-jafe sa wàllu wér dama ne nga am jafe bu la jaaxal lool say mbir tëju say buntu tëju sa lépp daal di tëju kii moo ci gën a gaaw waaye dama laa bëgg xamal li nga xamante ne daf koy faj dama ne da nga am ay jafe-jafe ci sa yaram am ay jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy sa boroom kër jaaxal la lool wala sa soxna jaaxal la lool soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw sa yaram daal di tëju ba loo làmb mu dëgër ngay déposer ay kayit mu jafe la lool nga bëgg tukki mu jafe la lool xëy nag moom munoo ko am te da ngay wër bëj bëgg dee ñëwal seet si soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw léegi nag déglul ma wax la wàllum seet dama ne Sénégal dañoo wër ci biir réew mi wër ci Afrique wër ci àdduna bi ñëpp daal di d'accord ne soxna aada yàlla bi mooy dàllin ci wàllu seet lool teg la ci kanamam di la wax sa démb sa tey ak li war a ñëw suba dama seet moo ci mën ci moo ci mën ci Afrique moo ci mën ci àdduna bi ma ne ay càngatam amul fenn bu dugalee fii ba sang booy xëy sa yaram ba loolaal mu nooy foo jublu ñu bi ay buntu kon nag daw leen gaaw seeti soxna aada seexu yàlla bi mu lijjanti la say jafe-jafe daal di lay teg ci yoon andil nañ leen candidat bu gën ci candidat yi xam naa sama digganteeg yéen xam naa cofeel gi ci am xam naa kóolute gi ci am wax leen ni est-ce que xam ngeen ni Bassirou Diomaye Faye xam ngeen ni moom a gën a wóor man nii bëgg ngeen président buy liggéey donc jëriñ réew mi te du jël gërëm bu mu def ci poosam mun leen am ku gën Bassirou Diomaye Faye comme tappale yi ñu leen wax naan amul expérience nee naa leen Bassirou Diomaye amul expérience bu ñuy sàccee loolu amu ko de mosu koo def waaye expérience bu ñuy defaree réew moom am na ko kon Diomaye la ñu gën Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye kon mbokki Pire yoon bi xam naa gudd ma feddal leen suñu mbégte ci teew fii li ma bëgg mooy bu ñuy lim dimanche ñetti fan a ci des incha bu ñuy lim ne ñii ñoo def 100 pour cent ñii def pour cent ñii def. 65 pour cent ba ñu def 51 pour cent dama bëgg suñuy wax pur ñu ne pur bokk na ci nga xam ne def nañu 100 pour cent. na loo xamante ne mënu ma ko bañ a wax yow mi nga xamante ne dangaa tëlee yow mi nga xamante ne boo tiimee sa soxna doo ko mënal dara yow mi nga xamante ne boo nekkee sa soxna guddi da ngay jaaxle lool ba doo sax yàkkamti daal di jot dama ne wool soxna aada mi nga xamante ne mooy seexu yàlla bi di gàllinkoor mu jox la ci produit yi nga xamante ne boo koy naan di yëg sa bopp loolu nag mooy neexal kër gi loolu mooy neexal sa digganteeg sa jabar produit yi amul benn effet secondaire nag ma ne ñamal rek boo ko ñamee billaahi di nga xam ne soxna aada mooy gàllinkoor produit yaa ngi noonu képp képp koo xamante nag bëgg nga ci woowal gaaw soxna aada seexu yàlla bi ci ñaari numéro téléphone yi muy 77 216 39 69 wala 78 yoo ko woowee amul intermédiaire da nga koy jot directement su ko defee nga la di koy wax say soxla mu daal di la koy lijjantil ci nu mën a gën a gaawee dama wool soxna aada seexu yàlla bi wax ko sa soxla mu lijjanti la ci nu gën a gaawee kii mooy soxna aada seexu yàlla bi dàllinkoor bi moo mën moo ëpp doole te moo gën a gaaw